après dinañ ñëw laaj yàlla loo si jërëjëf alors ñu ngi taxaw ak ki moom Guy Marius Sagna donc Guy Marius Sagna nit ñi xamee nañ bu baax a baax ci wàllu activisme mais également ci wàllu politique ñu jàppal ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko alors ñu ngi nii toog Guy maa ngi lay nuyu. adjoint au gouverneur de Thiès de monsieur kontaan nañ si ñëw dina ñëw. Euh, seet daal di ñëw représenter monsieur le gouverneur de la région de e Thiès ñu koy wax. nekkul place de l'indépendance tey nekkul ci terrain bi. moo ngi àndandoo bi dafa bëri ay melokaan terrain bi bu nekk ñu naan pour la souveraineté monétaire France dégage bés bu nekk ñu naan Auchan dégage wala Carrefour dégage waaye bés bu nekk ñu taftal si doomi réew mooy tabax réew. kon tey e bu ñu amee ay doomi réew. E merci d'avoir répondu bu ñu amee ay doomi réew yu kuréelu ci groupe EDK OL taxawal ay station service EDK muy suñu yëf ñu naan déet ñu lancé Jolof Chicken muy suñu yëf ñu naan déet ñu lancé aussi lu ñuy woowee ñu bëgg a tey lu ñuy woowee. système de transfert d'argent bu ñu woowee KPay dañ leen di féliciter dañ leen di jàppale dañ leen di dooleel euh, parce que kenn du leen dooleel ku dul ñun ndaxte mënoon nañu wax ne Orange Money France mu ngi euh, fi Wave américain mu ngi fi waaye dañoo wax ne foog ñu dog jéngi foog ñu am souveraineté ndaxte yónnee xaalis jot xaalis ban technologie euh, moo ci am ba africain mënu ko def ban technologie moo ci am ba Sénégal sénégalais mënu ko def ba ñu loolu la groupe EDK OL def loolu Ka def donc suñu waru gar suñu cër ñun mooy doomi Sénégal doomi Afrique doomi réew ci làmb bu dëggalee boppam ngir ñu moom suñu bopp bénéfice yi di toog fii emploi yi di toog fii ñun suñu waru ñun ñii doon ko xutba ay at ak at mooy teew jaajëfal leen gërëm leen féliciter leen waaye lancer un appel aussi euh, ñun ñoo war a jàppale les entrepreneurs sénégalais yi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu ñun ñoo war a jàppale sénégalais yi nga xam ne ñu ngi jéem di créer ñu ngi jéem di taxawal ay këru liggéeykaay donc may profité di lancer un appel au patriotisme économique bu ñu waxee patriotisme économique. mooy patron sénégalais yi war nañ dëggal seen bopp waaye bu ñu waxee patriotisme ah, économique tamit mooy ñoom war nañ consommer local war nañ consommer africain consommer sénégalais donc ay wala ñu consommer groupe EDK OL ñu consommer euh, KPI Jollof Chicken EDK OL. ñu daal di def mise en place yi ñaari mbër doomu Sénégal ñoo si topp euh, yi kenn ki yegg si na keneen ki ñoo ngi koy xaar mbër yëpp samay mbër la daal di dugal di nga xam ne moom moo di association des promoteurs de lutte ki nga xam ni moom moo di Pape Abdou Fall di promoteur bu mag boobu nee na ñu xamas kanam moom dina ci wax mais ñi ngi euh, jël wala sax ki nga xamante ni moom mooy Pape Abdou Fall de grand euh, promoteur Pape Abdou ñu gis mi ngi wuyu téléphone dañu koy bàyyi rek mu wuyu téléphone ba pare euh, pourquoi pas ñu daal di koy jël waaye dafa mel ne sama frère Luc Nicolas Enco Luc Nicolas war a ñëw jël kaddu bu ca jógee. père ñu ngi lay Abdoulaye Ndiaye Sénégal nga xam ni nag moom dañ ko xam. ziar leen di leen féliciter encore bu yàgg bi nga xam ni. gis nañ liggéey bi lépp rafet na daal di ñëw eh, moom bonne continuation. ñu daal di déglu tey da nga ñëw ñëwoo en tant que promoteur bu organiser événement mais da nga ñëw pour jàppal tànk wala sax pour appuyer sa frère li mu ne ko. waaw fii man double casquette laa fi dikkee parce que ki xewle muy mon frère El Hadj Serigne Fallou kii di doomam di Willy ñu pare ci. mu collaboré ji ak koo xam ne maa moom ñoo bokkoon dëkk muy El Hadj Demba Ka kon lii sama mbir moo fi teewee a a damay ñaan yàlla rek ku nekk ah, li nga ci nam rek yàlla na yàlla ah, waaw lan la ñu mën a xaar ci li nga xamante ni moom mooy tey yow au de promoteur bi nga doon amateur nga lan nga gis ñaan nga dara di leen wax nii nañu gën a conscient xam ni lii waaleykum salaam mbirum ñëpp Boubacar Diallo ñu ngi lay rafet lañ ci xaar ne lépp rafet ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi ba ki nga xam ne moo ci invest money nam tey gis ci boppam yëpp tàkk nañu waaw a ngi seetaan face to face bi dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo ànd ak innovateur de la lutte sénégalaise eh, li ñëw amateur est-ce que amateur tey jii dañu nar a dund guddi goo xam ni guddi lamb dañu nar a dund guddi goo xam ne guddi wax ma wax ma benn clé ci mbot ci bër guddi goo xam ne benn clé de da wax mbot may naa la waxal mbot wax musique lu mën a àndal waaye tamit ku wax koom-koom bu yokk loolu tamit yaa ngi dox ci li yokkum réew dama ne dox ci mbapat suivre ko am réew boo ci nekkee lan nga wax sa bés da ngay fexe réew ma émerger comme ni ko président de la république de tous les sénégalais di waxee am réew nag li koy yokk bokk na ca ndawi réew ya wala bokk ñeneen ca réew ma am liggéey waaye lay tax réew ma ñoom ñu juddoo ci réew ma yaroo ci réew ma dañuy am ay société société yooyu ne ci réew mi di mel waa réew mi di jëfandikoo société yooyu alal yi def ci réew mi kon boog ki nga xam ne moom moo di Demba Ka liggéey bi am na solo EDK Owel moo jur Jolof Chicken Jolof Chicken moo fas yéene jur société bu mag bi nga xam ni moo ñu yombalal lamb ji ba lamb ji yaatu lool nga xamante ni moom mooy suñu papa maa nga maa nga nar ngeen gis lu a gis ci lu ngeen mës a ci lamb ndax parce que innovation la signature contrat boo xam ni di remercier le promoteur di dem seen suite seen hôtel ndax yaakaar naa ne ñëw face to def fa signature muy doomu réew mi moo am loolu di investir fii di jàppale ay doomi sénégalais jàppale lamb sport national boo xam ne dama ko jéegaane fenn ñu ñoo ko moomal suñu bopp di ko remercier di ko sant bu baax a baax di wax ne tey Ama Baldé Modou Lô am nañu sas donc di leen ñaax ñu ñaax seen supporter ñu bëri euh, sportivement ku yàlla jox ndam moo xam ne moom la yàlla jox ndam ku ñàkk nga xam ne yàlla moo la ñàkkal moom ñu dem sportivement ñu xam ne boo ko day ñoo boo ko bàyyi ndax su nekkee kenn benn nit mënul mol boppam cent millions il mu am adversaire pour mu am cent millions yooyu kon nag ku nekk mooy or moromam kon yaakaar naa ku nekk dafa war a moromam wér gu yaram ñaanal lu promoteur boo xam ne investir jël alalam investir ko waaye xol sentiment ngay am yéen ñi nga xamante ne macha allah yéen a ko tóoj ba lamb ji gis seen i doom say frère nekk ci comme li nga wax ay 100 millions jëm comme am. sant euh, yàlla sant yàlla bu baax a baax parce que suñ ñaawoon du ñu egsi fii kon nag fekk suñu mag yi. ñu rafetal ko ñu topp seen tànk bi rafetal ko bi xale yi suñu jarbaat suñu doom ñi mën a egg si fii kon nag yaakaar naa loolu sant yàlla la te ñu ngi leen di ëppale di ànd ak ñoom pour ñu ñu gën a rafetee ndax suñu làmb ji suñu sport national dañ ko war a jaay yi comme ñeneen ñuy jaay seen sport fu nekk kon yaakaar naa loolu mooy suñu ambition avec le CNG. dinañ dinañ ñëwaat xam naa certainement si yow parce que ñoom bu ñu duggee bëgg nañ xool nga analyser ñu forme bi ni ñu ñëwee comme ñaar kon moo a taxaw ci. c'est avec a teew ak ñi nga xam ni ñooy teewlu ak Père ndax li ñuy def sax maanaam moo ko waroon def euh, mais macha allah ñu ñëw ñu yaatal ñu Sénégal set ba ñoom surtout fekk la